అవునండి స్వామి ఆశ్రయం చూసుకొచ్చి مسلسلاتي ونصبك بأن يحضرون توهب يرزق يا ملكي توهب يا مسخن كنا أنا لأسمع عدلا بالبشي محمد حتى أكمل من له أكنا كسر جواني تواع وحمني ممكن أتوراه وتبسم أكنا السماء والأراضي والحروب بها ومشارك من أجب وصل من رسم دين محمد وتحبيب فائق دارا سبحان ربك آمين nga xam ne yàlla mu musal ci soppi ko mbir jëm safaan ba suñ tuwa wa badalu tabdila asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh waa kay Modou de Gora Diaw bay bay Gora Diaw day laaj fii laaj bu am solo xam naa xam naa jamono ji mel na ne ne mel na mel na ne mel na ne laaj bu jamono ji la Sénégal ñu nekk ak adduna bi. da nga gis onze septembre ca ca Amérique seen xew-xew yu mag yi kaamil alxuraan dafa jar lool ci Amérique tubaab bi di di ko jënd borom xam-xam yi dañu statistique yi nañu wax nañ ne juróomi junni américain tuub nañ dugg ci islam ndax daal buñ buñ jàngatee alxuraan jamono jooja ndax daal événement yi da leen a yëngal ñu ne daal lan moo war a waral daal war nañ koo xam am na ñoo nga xam ne kon kon am na ñu ñu dugg ci diine waaye am na it ay waa golf bi waa xalij ñoo ñu xam ne ab lim ñoo xam ne gën gën gën nañ ci diine ci islam ci jamono jooja ndax daal ne mbir yi daal li nu mu demee waaw waaw waaw laaj bi mooy ku ne ci diine islam ba noppi di lu war a dëgg ci diini wax dëgg mi ngi ci diini islam kon kon moom islam wóoru ko di ko wër ci yeneen diini yeeg yeneen daal man daal xam ne yàlla yàlla dëgg la waaye nag jën diine mooy dëgg donte ne xam naa kon. daa juddu ci islam ji wala ndax da caa yaroo noonu ñu ko waaye nag mu di ko wër waaw waaw kooku nag moom ay julleen ko jaamu yàlla am yooyu kon moom su su su fara woon ci ca ci ca loola mbiram laaj laaj la bu am solo dégg nga quraan yoon yi nga xam ne xew nañ tey quraan yoon da nga xam ne école école bu bees la mais julli moom. waaw almadaaxila na ñu tuddee almadaaxila bari nañ ñu yàlla ay école yoo xam ne judd na léegi islam ndax fareex tasut ginnaaw julli ñi moom boo yore xaalis rek koo ko jox boo ko weddi loon boppam mu weddi ko bu nekkoon waxal ne ab jaam laa mu ne ab jaam laa bu nekkoon nangam laa mu ne nangam laa te tubaab bi ñoom yor nañu ay milliards yoo xam ne loolu loolu tax mu jóg. ay fonds yoo xam ne loolu jóg waaw xuraan yu nii ay seen xuraan yoon xuraan yoon ay wa ñoom nañu xuraan dong mooy mbir waaw waaw sunna amut léegi xuraan moomu ci fuñ ko jote ci ban état maarifi ban état man cadre juridique cadre cognitif lañ ko jote ñu ngi ko jote ci sunna dañ ñu ko nettali tey ci bëccëg am na ku may woo di ma laaj mais dafa am ku xam ne daa gis ci Buxaari dafa wax ne aaye bu buy tere nappal góor amoon na ci alxuraan waaye jinax yaa ko lekk waa ji kii ma ne ko sëñ bi yooyu yow loolu ma ne ko looy jàng da nga jàng muy liggéey mu ne ma day jàng mu ngi jàng xaw ma lan ban ban domaine see nekk ma ne ko yow ma ne ko yow te nga nekk ci sa domaine boobu tubaab yaa ngi dem. yéen ngeen nekk ci yooyu yi gën a am ko loolu théologie la loolu mën naa la cee wax lu lu lu gën a xóot loolu te te kon su su boobaa au moins ma jot ak leeral la ko waaw waaw waaw xam ne nga xam ne noonu ñu ne Buxaari ne Buxaari du saxaabi asaw kitaab yi ban kitaab yi la ñu ne Buxaari loolu moom waxatuñ ko Buxaari bu ci duggee xam ne xel maanaam léegi am na fa ay mbir yoo xam ne xel sax nangu ko. waaw mënta mënta wér moom waaw man naam jàmbaar la woon def na la man waaw rahimahullah yàlla na ko yàlla fa fa fay yow waaye nag du ne ab yonent la du nekkul maasum boo xam ne xàmmee woon na xadis bi dëgg-dëgg ci saasi la ma jóge am déet am na ay jumtukaay nattukaay jëli jëli xabaar waaye nag amutoon yaqin ci yëf yi waaw waaw waaw nga xam ne nga xam ne nga xam ne Birman Birmingham université boobu nekk na xam ci Allemagne ak waaw kaamil boobu nga xam ne ne jot nañ ca maxtuut li Qur'aan karim maxtuut boo xam ne aqda maxtuutin bil alam ci lañ gisagoon nga xam ne ci xarnu maanaam ki ki bind kaamil bi jamono toon ak itam alayhi salaatu wa salaam ay borom xam-xam ñu ngi ñu ngi ko xoolee Oxford Oxford ñoo ca ñoo ca lëkkaloo xool daaje daaje ñu gis ne ci ki ko bind moom muasiru bi nabi salaam gis na ko gisu ko waaye moom jamonoom la nga xam ne kon moom ci siècle bi alayhi salaam nekkoon ci la ci la kooku bind téere bi ñoo xam ne xarfan bi xarfin moo suñu kaamil yi waaw maa ngi koy topp loolu sax ngir ngir jot ci nga nga xam ne nekkoon bu keene bu keene diw nee na am na ayib ci dëgg boo demee ci suuf di fekk fa fekk fa yu mel noonu waaw waaw waaw wala da ngaa di yéen nampal ñaata la nagam am na fi daal ay xam ne jër tudd yoo xam ne ci ci al itqaan dafa fekk ay coow yoo xam ne kon boo demee ci téere bi kon da kon da ngay jaajëf dërëwaat ne kon itqaan kon la mu waxoon kon wérul donte ne imaamu Suyuuti rahimahullah jàmbaar la góorgóorlu na moom du waxul moom dara nettali wax waxi gaay ndax fekki wut waaw kon xam-xam ngoog tax taxqiq at-taxqiq al-ilmi certification méthodique la kon da ngay xam ne kon suñ boobu kon di ko li jawaar jawaar kabwa kooku kon daa tëfoon foofa ndax it moom day nettali rek diw ne diw ne na comme yaakaar ne góorgóorlu nga ci xam-xam mu nettali say wax nettali ngir saxalut weddiwut waaw nga xam ne kon gis nga kon lislaam ñi nga xam ne moom leer na koo xam ne ne ne nag sa xam-xam xóotut ndax sa ku mën xaji la wala dut méthodique wala wala wala deme ni moom ku koy def dangay am ay ay ay jumtukaay xam-xam maanaam sax la jiitu mooy dangaa jàng ba ne ar problématique judd ci biir xam-xam ci ngay duute ngir tontu ko waaye bu dee ci suñ Sénégal gi moom koo xam ne war na noo lef ci xam-xam bu ñuy soo xumu ko fiq bi képp dégguñu ko xamuñu ko bay dégg leneen di xam leneen loolu dootu ne nag théologie bi nga xam ne dafa ay problématique la yu xóot ndax li ku mel ne xasaar yi du dut mi duggam bi li ko waraloon mooy Baxdaad ba mu fa nekkee booba mu nekk centre capitale boo xam ne yahud yi nasaan yi julit ñi majuus yi nangam ñëpp fa daje di borom xam-xam di ay cadre di ay théologien yu yu yu mag kenn ku ne di layal la nga ne booba moo taxoon xasaar yi jékki-jékki ne ah luy lii moom ndax ku ci nekk bu la layal ba noppi da nga xanaa di dëgg la loolu moo ko jural dut mi di gam waaw bu dee noonu noonu moom Sénégal xaw ma fi man lu jar dut mi di xaw ma ko fi xanaa kay xanaa kay dund. diini ji alxuraan ji li mu wax ak matee sa min sunna asaxiha xasaba almutaax kemtale kàttan la li wér ci yow ci sunna nga nga ne jaar yaakaar naa te boo ci nekkee tuuti daal di gis résultat waaw waaye waaye ne ci diini ji moom lislaam di dutee ba xam di jan diine wér mooy kon yow néewoo ci dara ko néew dara kon loolu kon kon kon kon yow kon dangaa war a sóobu gaaw gëstu gaaw góorgóorlu gaaw ba am ba xam yoon wax ku ñuy wax Cheikh Mouhamed Moutawalli Charawi tontu na ci ci loolu wax ju am solo kuy dudee nag ci biir diine di dute ba xam ndax diine ji diine yu nasaan yi yor na léegi diggante bi bi ngay demee di di di dute bala ngaa am lu wér faatu fa nag kooku day alko ndax néew ci dara ku ne xam ne ne boo boo boo defoon théologie ba gis nasaraan yi ñoom am na jafe-jafe ñoom seen seen injil bi moom du injil maanaam bu demee injilu Luga Mitiyu Markus nangam ak Paul yooyu moom ay ay leetar la yàgg ñu ko mel ne Markus di bind benn benn benn commerçant leetar bu leetaram bu mu bind commerçant di ko wax ne ko li ma xamoon ci histoire u Seydina Isa salaam li ma ci xam li ma ci dajale mi ngi nii loolu mooy injilu Markus waaw injilu mi tew yooyu moom du lu simple la moom mooy sunu sunu jarjari bantuwaay yi yi ñuy bind rek loolu rek la waaw nga xam ne moom du nekk nekkul lu ñuy gëm gëm gëm boo xam ne mënoo koo jéggi déedéet waaw taarix la rek boo xam ne moom moom diw ma diw ma ko bind moo ko bind mën nga ko wécc ko ne man naam xanaa jàmbaar la xanaa góorgóorlu na ba kii dara waaye nag nekkul dëgg ngoo xam ne genn la waaw waaw loolu kon moom boo demee ci yahuud yi ñoom seen tooraat ba moom ay alluwa la nekkatu fi gisatuñ ko dem na réer na moom yàlla yëkkati na ko yóbbu na ko li fi nekk Talmud ñoo ko bindaat ginnaaw ba ginnaaw ci ci ansur chetaat biñ leen biñ leen bux nas nax tasar kii tasaare ñu ñu dugg àll bi fu nañu fu nañu dugg fa seen mag ñi daal di tàmbalee di di di di ku ci nee na loo jàpp ne mokkaloon nga ko ci fii loo ci xamoon ci nga yàqal ko loolu mooy Talmud kon moom kii boo demee ca yeneen diine ya demal demal ci bouddhiste bu bouddhiste yi kooku da nga xam ne seen diine yi am na solo waaye ni nga xam ne yokku yokkaat yu bari ndax ndax ndax ndax jamono dox dox ci ci ñoom yokku yu bari nga xam ne lii moom ba tey ba tey du dara moom lii lii fi ne xanaa kay cosaanul diine ja nirvana ji muy wax nangam nangam yàlla yàlla du jëm moo tax mu ne su ko fekk fenn su ko tabaxal jàkka di ko tabaxal istati waaye dañuy seeti moom xeet yu mel noonu islam ji moom leer boole adduna ji ak àllaaxira ji ni ñu tabaxee société ni ñu defaree xol ni stabilité noo ko di amee ci dund ko yu bëree bëri bëri bëri ubbi xel nangam nangam xam-xam yi gëstu ko. afalaa yatafakkaruun fi xalqis samaawaati di wéy yooyu moom kon lislaam moom ubbi lañu ay ay bunt yu yaatu kon moom kon moom diine ju xel la waaw yeneen diine ya da da gis ne xelliwut waaye ji diine dafa xellu diine ji dafa neex ngay dund mu neex dund ji diine ji da nga yëg ne la vérité absolue mi ngi ci da nga ko ciy fekk yow léegi nag ndax am ngay bagage yu mën a gëstu kon sa alluwa soriwut la sëñ bi dénkaane woon mu fa samay sëñ bi dana dénkoon ne yéen ngi jëm ci jamono joo xam ne yéen tamit tax a mucc jekki noppi liggéey loo loo am teeloo ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah.